li waaj a xew ci réew mi euh, parce que dafay am loo xam ne daf fe amoon te ñii di tëbëka dal ñépp nag dinaa leen comprendre te ñu mel ni man ci réew mi tamit dinañ leen comprendre parce que dafa am lu fi xewoon ay rapport yoo xam ne amoon na fi tey rapport bu ci mel ne rapportu CREI yi bu procureur Aline Ndao rapport boobu vingt cinq personnes tey jii la épinglé woon Talla Gajaga bi meeru Malika ma yàgg koo teg fii ci taabal ji di ko tudd sa rapport booba la nekk luubal un milliard et quelque ay ñoom Omar Sarr ñoom ñépp euh, euh, euh, sa sa sa la nekkoon tey anamu tey ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ak ñoom sëñ Mbàkke bari na ci tey ñu nekkoon ci rapport boobu tey Macky Sall jëloon rapport boobu teg ci coñcam yaakaar ne tey ay Guinée ak ay Kaolack ay malikaat fu ne tey jii nii maanaam ñooñu mën nañ ko ko gañeel mu waroon a jël alal jooju tey def ko ci réew mi ba nga xam ne tey taw bii ngeen gis tey Touba nii mu mel ñaaw na lool. nii kawlax nangaan mel ñaaw na lool Ndakaaru nii mu melakum ndox fenn ci banlieue bi ñaaw na trop. loolu lan moo ko waral alalu réew mi nga xam ne daan nañ ko jël jël ci ay nit yoo xam ne daan nañ ko sàcc ñu war koo jël nangu ko teg leen ci yoon delloo ko ci réew mi ñu jël ko def ko ay fonds politique di ko politiquer képp koo xam ne dañ laa waroon na teg ci yoon ñu jël alal jooja tey woola nga ñëw bokk ci seen parti yooyu nga xam ne ay tappale rek la ñuy nekk guddeeg bëccëg di sàcc alalu askan wi loola nekk lu ñaaw lu waroon a mën a bañ a am ci réew mi loola nag tey jii moo tax tey politiciens yi yëpp kalaasug ba Ngom geeg ñi ànd ak Lat Joob te suba di ngeen gis ay kalaasug Cheikh Omar Anne gi ñoom ñooñu ñëpp daañu wuy ji te ku wuy doo dellu sa kër parce que ab sàcc nga loolu moom mooy dëgg Farba Ngom mii nga xam ne tey moo nekkoon fii ñu naan ko géwélu Macky Sall nekkoon ci réew mi ñu dema dema dem ba leen di gaaral sax naan leen Farba Ngom day saaga Macky Sall ay ndey ngir lépp teg ko ci ay fitis ak ay sacrifice yàpp jaakaar ni réew mi seen donay nday la wala seen donay maam la wala ci seen bàyyi lan ko donee ñu meraas ko yu kenn xamul lu ne ñu def ko ci réew mi tey jii loola yépp tey di ngeen ko fay askanu Sénégal di ci teg seen bët parce que li ngeen doon def dugg leen ci ay rondal di ko def da ngeen di taxaw caméra yi di leen tiim ngeen taxaw ci ensemble bi taxaw ci biir pale bi di wax ñuy dégg di ñu insulter di sàcc sunu alal di ko rawale seeni doom tey nekk yor ay comportement yoo xam ne tey jii nii ku ko gis xam ne ñii alalu sénégalais yi la ñuy dunde loolooy dëgg seen néeg yi ngeen yor def fa ay ventilo yoo xam ne vingt quatre heures sur vingt quatre du fay moonte fa ay kilim taal ko muy tàng di tàngal xaalis bi kii di upp pour xaalis bi bañ di kole alalu askan woowu ngeen sàcc loolu lépp dina dellusiwaat ci réew mi ba ngoom añam nga dëkk Fuuta nga dëkk ndakaaru liggéey moo la fi indi man nga fee am ay teraanga jënd fi say kër mais alalu askan wii nga sàcce tey fu ne ci littoral bi fu ne ci biir ndakaaru Farba Ngom nga buddi fa immeuble Farba Ngom ab sàcc nga yaa yeey nag tey woote sa conférence de presse gàddu sa di tëbaka dal ci kaso bi nga jëm yàgg naa la ko wax ñeneen ñu mel ni man yàgg nan la ko wax ku dem ci sama TikTok gis fa ay vidéo xam ni dal naa ci sa kaw yow Farba Ngom nee naa leen alalu askan wi ngeen jël tey ji nii maanaam naan ko dinañ jëlaat sirengal bi jam ko ci seen xottu taat yi lépp lu ngeen mankoon ci alalu askan wi daañu ko jëlaat indiwaat ko ci gafak ak réew mi parce que yéen a trahir askan wi Farba ab saay-saay nga ab doomu xaraam nga naankatu deretu askan nga yow Cheikh Omar Anne sa rapport bi bis bu ne bëcc ci taabul ji yàgg naa ko wax ñi ma yàgg a topp nee naa bawal bawal yi ak saalum saalum yeeg ñàmbur ñàmbur yi baykat yi ay yet lan war a ut wëri Cheikh Omar Anne fu fekk ñu fekk ko fa ñàpp ndayam parce que ab sàcc la alalu réew mi la sàcc ñoom ñëpp ay sàcc lan Abdoulaye Diouf Sarr Covid 19 bi bi mu ñëwee moo fi nekkoon ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr yàgg naa koo teg fii ñi ma yàgg seetaan ba ci jabaram ji nga xam ne tey jii nii maanaam mooy cawlaay yoroon restant Covid 19. resto di Covid nga xam ne ka ko doon jaay ginaar yee mu nga dëkk Malika xam naa ko waaw. ngeen di jaay seeni palaati ceeb naan malaat yeeg lu kenn xamul di tappale di enrichiru ci alalu askan wi di ko sàcc Abdoulaye Diouf Sarr di nga wuy ji te kenn mënu laa tere wuy ji te boo demee balaa la say mbokk gisaat li tax ñu woola ba téele fa dinga ko leeral ba mu leer naññ ay caaxaan baaxul Mansour Faye di nga wuy ji te boo wuy jee balaa nga dellu saint liwi balaa laa say mbokko gisati umu jàll sa nday ji toog ci puus puus bee balaa mu laa tegati bët li tax ñu woola muy alalu askan wi di ko leeral ba mu leer naññ ci sunu bët ñu door laa bàyyi nga dem ñibbi loolu moom mooy dëgg sa mag eh, sa goro bi fi nekkoon eh, di sa jëkkëru mag jiite woon réew mi di eh, di Macky dinañ ko woo dinañ ko indi ci réew mi dinañ ko atte lépp luñ am lanteeg sénégalais yi ñu koy topp di ko tudd ci turam ci bi fi nekkee ñu fal ko dina ko leeral ba mu leer wala ci kaso bi lay dee moom Macky Sall loolu du ay caaxaan loolu du ay caaxaan te bu bu bu ngeen yaakaaree ni Sonko ak Jomaay dañuy politique wala ñun ñii toog fii di laay di leen dànkaafu di leen saagay nday di dal ci seen kaw dañoo parparloog Sonko ak Jomaay ngir ngir ay affaire politique bis buñ ko defee ngeen xam ne saaga wun leen saaga denc nan saaga yoo xam ne te sunko ndeyam a ngi fi di dund Jomaay ndeyam a ngi fi di dund baayam a ngi fi di dundu sonkook Jomaay dëgg leen àndeek ñoom ak wax ñu loo xam ne am nan yàqin ni dinañ ko doxal te ñu gis leen ni jàpp ni lii ñii lan ñu wax ñoo ngi ci alalu réew mi dingeen ko indi di ngeen indi alalu réew mi ngeen sàcc man mii bi may nekk sa daara ja sama magum daara jabaram yàpp naa ko jële ko gàpp di ko yóbbu gàdd muy accusé ci kaw saret bi ma yor la accusé billaahi wal kitaabi man dund naa ko man booy Malika dund naa loolu bi may nekk ca daara ja alalu askan wi ngeen yàgg a sàcc baykat yi di yàgg am ay problème demal ci monde rural bi demal ci communauté rurale yi village yoo xam ne tey ay vingt kër ñoo fa nekk tey sax waroon ngeen faa dem tey jii defal leen fa poste de santé fu ay nit di dund tey war nañoo am fu leen jige tey fu ñuy fajoo ngeen jàpp alalu askan wi di ko sàcc jàpp alalu askan wi di ko tabaxe ay kër jàpp al alalu askan wi jël seen doom yi yóbbu leen Canada fu ne ngeen yóbbu leen fa pour ñu jàngi ngeen sàcc alalu askan wi di ko jox seen doom yooyu yaakaaroon ne tey Macky sàll bu fi jógee wala yaakaaroon ne Macky Sall bu fi jógee ki koy wuutu sax yéen da ngeen di continuer yi toog di enrichir di sàcc alalu askan wi yéen dangeen di nax seen bopp da ngeen di nax seen bopp bu baax a baax te lépp lu ngeen masa muucu ci deretu askan wi maa leen ko wax dinañ jël suñuy serengal jam ko ci seen xottu taadi lépp lu ngeen naanoon ci deretu askan wi daañu ko manque delloowaat ko askan wi loolu na leer yéen waaw dina ana amoon naa fi sax seen xottu taadi moom danañ ko bënn waaw seen xottu taadi yéen dana dana danañ bënn seen xottu taadi yéen waaw seen xottu seen xottu taat yi danañ sirengal yi dinañ ko jël ruux ko ci seen tuun yi manq seen xottu taat yi seen deret gi ngeen yàgga naan ci ngeen dinañ ko manq delloo ko ci gafak réew mi parce que ay sàcc ngeen ay workat ngeen ay criminel ngeen ay assassin ngeen ay nit yu bon ngeen doomu xaraab yi ba pare picciir leen pikiiru dee waaw dinañ jël sirengal bi manque seen seen xottu taat yi alalu askan wi seen biir yi dinañ ko bënn muucu alalu askan wi ngeen yàgga naan delloo ko ci gafak réew mi ba pare pikir leen pikirub dee yéen ngeen dee parce que amu njariñ ci réew mi lu yàqu ci réew mi rek yéen ko yàq lu metti askan wi ci réew mi yéen yéen leen ko teg fan ngeen teg loolu fan ngeen ko teg li ngeen nekkee ci réew mi ba ba kañ seen affaire politique politique seen yi amu leen benn bu benn yërmande nekkul ci yéen parce que bu ngeen amoon yërmande sax am na ci loo xam ne du ngeen ko def ndax lan yërmande bi nekk ci seen biir xol yi bu ngeen jugee naan ay baax ban mbaax ngeen baax te kenn ku ci nekk ci yéen dem leen ci seen famille am ngeen ay mbokk yoo xam ne yell nan ci tey ngeen jàppale leen ci teraangay àdduna ji ngeen yaakaar ne tey am ngeen ko te alalu askan wi ngeen sàcc ñi topp ci seen ginnaaw mooy ñi leen di xalamal mbokk mu ngeen am te nanguwu leen a xalamal du ngeen ko dimbali mbokk mu ngeen di dimbali rek daa nekk mbokk mu ñàkk jom di marché ni taat di leen xalamal ni ngeen mel dafa ñaaw ni ngeen yàgg a nekkee ak sénégalais yi dafa ñaaw ay nit yu bon ngeen te du ngeen am fenn wàllu du ngeen am fenn ndimbal du ngeen am fenn soutien sénégalais yi doomu xaraam yi ngeen doon sàcc alalu réew mi nag di leen ko doon jox ñooñu moom di ngeen am seen soutien mooy maire ya ma gis tey ñu naan ay Lat Diop ay affaire maire yooyu dem leen ngeen xool leen fan dëkk Géejawaay waaye parcelle demal ngeen xool seen jëkkër yi genn wàll gi seen jëkkër yi dañoo AVC ay naqar lan teg seen ci kër yi amuñu benn njariñ toppatoo seen doom yi toppatoo seen jëbër yi topp politique guddeeg bëccëg tallun ci wan rek la ñuy ut topp ñu ngir do seen doom yi dee ci géej gi seen doom yi nekk ci géej gi tey mën a indi aw jën napp ko jaay ko askan wi am ci koom seen doom yooyu taxuleen a topp ci ginnaaw lan jóg lu nu wann dong genn wàll googu man booy Malika maa ko wax ci banlieue bi laa dëkk dem leen ngeen seen biir kër yi maire yi ngeen gis démb ñu naan lan jóg di xuyuuxoo ko daanoo ñoo ko dal laa demal nga xool seen jëkkër yi genn wàll gi seen jëkkër yi dañoo AVC amalul njariñ seen boroom kër yi amalul benn njariñ seen seen boroom kër yi ay tappalekat lan ñoo yàggar yàq réew mi ànd ak politiciens yi parce que yéen maire yi bu doon am ngeen fulla am ngeen fayda takk ngeen seen digg yi pour seen doom yi ngeen jur tey dundu ci tere teraangay réew mi tey politiciens yi nii ñuy nii ñu fowee fawee du ñu ko fawee ay doomi xaraam ngeen du ay nitu dara waaw du ngeen ay gor sax rusu leen tey caméra yi di leen jël di leen wane tey ngeen taxaw naan ay ay ay sàcc yuñ jàpp ngeen taxaw tey naan diw deful dara diw deful dara Lat Diop dossier ministre des sports bi mu ko yoree ñëwagul de dossier boobu ñëwagul de dossier bii ñëw ak feeñal bu ñu feeñal la rek mais bàyyi leen ba rapport yi wàcc bàyyi leen ba rapport yi wàcc Lat Diop waxuma la dossier bii ñu ko arrêté de am na beneen dossier bu koy xaar dossier bii Lat Diop bu ci génnoon sax am na beneen dossier bu koy xaar amuju ku ci mën a raw bu leen neexee nag takk seen làmmiñ ñu rëy naan waaw politique nangam sangam Ousmane Sonko yanu coow lépp sëf ko Sonko bu leen neexee ngeen def ko mais du ngeen rëcc te loolu du jàll loolu du jàll du jàll nag. may wax nag waa Pastef ak sympathisants yi nga xam ne tey bu nu sañoon tey waa présidence am majorité assemblée nationale ma leen di wax ni ngeen xippi seeni bët te yokk seen intelligence yokk seen patriotisme bu baax a baax te xam ni gis ngeen ay législative moo gën a compliqué élection présidentielle wax naa ko sama live bi passé législative dafa compliqué te gaa yi ay doomu xaram lan ay doomu xaram lan ministre de l'intérieur am nañ ci yow yaakaar parce que doo ab politicien ab général nga bu nekkoon ci armée bi tey ñu am ne am nga yërmande bëgg nga sénégalais yi jub nga te am nga iman ragal nga yàlla tëddeel njaaxaanaay bu baax a baax baax a baax bu leen may lenn lu nu wax naan gaa yi dañ ñoo sàcc lu kenn xamul général Jean Baptiste man booy Malika maa lay woo ci élection yi loo man ci mu transparence loo man ci tey tëj seen gémmiñ ba duñ am lenn lu ñuy xaseg di ñu ko saaga ngir yàlla dañ ñu ko defal boo leen mane boo mënee faral opposition bi sax faral leen waaw Jean Baptiste Tine ministre de l'intérieur opposition xuur dabb bi boo leen manee faral sax faral leen mais nguur gi moom ngir yàlla war a suuli yi bu leen bu leen ko taqal bu leen ci takkal lenn te am na lu ma leen waxoon nag bi élection présidentielle yi passé nee naa leen élection yoo xam ni ñun organiser wuñ ko ak nin leen jéppee te gis ngeen nin leen wan élection yuñ organiser ci transparence bis bu ñëwee ñu def ko ci réew mi di ngeen xam ne sénégalais yi génn nañ ci seen sari nday yi nii laa leen ko waxee woon te le 17 novembre di ngeen xam ne sénégalais yi dañ nañ ci seen sari nday yi maa leen ko wax pare nañ ci yéen balaa boobu nag ba rapport yi wàcc xam nga nag damay gis ay journaliste xaaral ma ñëw ci yéen damay ñëw ci ay journaliste parce que gis naa ngeen di utal gaa yi ay argument te yéen yéen a waroon a taxaw di leeral askan wi yéen journaliste yi billahi taxawaay bi journaliste waroon a am ci am réew bu ngeen ko amoon yéen journaliste sénégalais yi man booy Malika ay millions gu sénégalais duñ ma xam seen seen bët du tegu ci sama jëmm ji duñ ma xam mais ñàkk compétence ñàkk patriotisme ak nekk ay nit yoo xam ne ay imbécile ngeen ñi ëpp ci yéen moo tax sama classe gi ak classe gu Mollah Morgun géeg Akhenaton ak Jijek Tunkara ku ne tey toog tey waroon a nekk ci leneen ca fa nga nekk tey di wax ci réew mi du ngeen ay nitu dara ay doomu xaraam ngeen naan lan moo tax tay ñu jàpp législative yi rek commencé di woo gars yi est-ce que ñii fan lan mën a gañe élection yi passé Lat Diop bureau de vote am dóor ba juutal ko ah élection élection législative daaw yi fekkul Lat Diop am doole ànd ak ña Macky jiital Géejawaay ah nan lañ ko def local yi bu mu ñëwee amuñu fa candidat nun ko def nun def ñoom Aline Sall a ah, ay caaxaan baaxul tombe nag moo waral ay gaaf parce que loi ci constitution bi moo permettre président de la république jox ko lu mu tase assemblée nationale parce que assemblée bi bin ko falee deux mille ak léegi def na deux ans ci deux ans yooyu mën nañ ko mën nañ ko cee tas waaw tas gi nag bu tombee tey ñiy toog fi luy tolloog six mois tey permettre sénégalais yi six mois yooyu ñu nu yóbbu sax yéen journalistes yi ñu ci bari ci yéen avant yii di xew yàgg ngeen a gis sénégalais yu baree baree bari di ko kaas gis ngeen ko kon mu wóor leen ni ñiy bëgg-bëgg sénégalais yi lan def defuñu seen bëgg-bëgg bu doon sénégalais yi dañoo taxaw di laaj laneen ñun bëgg nañ ay hôpital di faju bu baax bëgg nañ ay tali bëgg nañ inondation mi tàqalikook Sénégal mais balaa looloo am ñi yàgg sàcc alalu réew mi nañ leen génne ban xam ne ñii ñooy sàcc yi ñun sénégalais yi lépp lu ñuy falati buñ sa bokkee duñ leen fal yéen journalistes yi ngeen war a taxaw sensibiliser sénégalais yi yenn porteur de yi ngeen nekk ay doomu xaraam ay doomaraam ngeen maa nga dégg buuse ko cëb nag génn naan li ma déggee lan toppe Lat Diop buuse dama ne la Lat Diop liñ koy toppe lii ñu ko arrêté moo ci gën a ndaw waaw liñ ko arrêté lii ñu koy toppe moo ci gën a ndaw bàyyi leen ay caaxaan ay caaxaan baaxul ay tappale baaxul te yenn patriotes yu bari maa ngi leen di dégg ñiy véhiculer benn message boo xam ne man man man loolu ànduma ci ay vidéo Lat Diop yi mu doon saaga Sonko loolu c'est politique te Sonko nee na lu jëm ci wàllum politique ñii lépp luñ jël teg ko ci jëmmam moom baal na leen ko mais alalu Sénégal baalu leen ko kon Lat Diop alalu Sénégal lan ko toppe toppewuñ ko ay Sonko nan doxaan ndayam ci kaso beeg yooyu déedéet wax jooju Sonko baal nag ko loola cib deram la ko teg alalu Sénégal ci boppam lan foyewul alalu senegal lan foyewul te li ma leen wax sànq Sonko ak Jomaay nan jël affaire yi def ko ay affaire de politique politique seen ay bëgg na maa gañ a euh, Matam ak bëgg na maa gaña fatigat bëgg na ma gañ a Mbàkke yu kenn xamul jël gaa yi tey jii bàyyi leen ñu tëdd ci sunu alal ji ngeen xool kon de sama séréngal bii ma ne dinañ ko jam ci taatu Farba Ngom yi taatu ñoom Cheikh Omar Anne yi taatu ñoom Mame Mbaye Niang Mame yi man ko man deret ji nga xam ni jam ko ci seen biir yi muucu deretu alaloo askan wi nu yàgg lekk delloo ko ci mbànd bi mu servir sénégalais yi kon de dinaa ko jam ci xottu Sonko weeg jomaay wi waaw dinaa ko ci ne mi dina dox de te Sonko duñu wor jomaay duñu wor waxin la rek Sonko duñu wor jomaay duñu wor man loolu laa gëm man loolu laa gëm Sonko du ñu wor jomaay du ñu wor te pouvoir bi la Moustapha Diakhaté tey yéene woon waa APR yéene ñu ko ñun sénégalais ci ak toroxtaange toroxtaange googu la leen yàlla jox ñoom jox ñu yiw réew mi cinquante ans soixante ans yi ngeen naj nday réew mi dinañ ndaw ñi dinañ ko téye réew mi suñuy doom dinañ juddu sax di gouverner ci réew mi yor ay bànqaas ci réew mi di doxal mais yéen pare ngeen ci ngeen naan ñu ay socialiste ay libéraliste ay yu kenn xamul di ko libéré ci seen biir social di ko joxante ci seen biir lu ngeen fi ana parti socialiste lu mu fi def ah ndaw ñi di dee ci géej gi ana socialiste yi ban xalaat lañ ci am ci wàllu social lan lan war a lan lan am ci projet social bu tré bu bu téye ndaw ñi indi ay ay moo ay libéralisme ay populiste yenn ay yenn moo yoo xam ne maanaam tey boo ko tekkee ci wolof lañu sunu Baye Cheikh Anta daan wax bu lii ñu leen di làkki tubaab buñ ko waxee ci olof ngeen fàq yet mais dëgg la ay ay ay cour conseil ay caisse de sécurité de consignation yooyu mooy lan lu muy signifier alal joo xam ne mënuñu la fii lañ ko def jël ay milliards jox jox leen ko ñu koy sàcc te buñ toogee ci télé yi nag di leeral tey benn journaliste par exemple bu leen nee mais haut euh, euh, conseil lan lay jariñ nga ni non xam nga loolu président da koo teg pour yenn yoo xam ne gis nga yow mii sax yow tey jii yow tey boo boo de boo defoon demande rek ni da ngaa soxla temps am projet nangam nangam dan lay financé maanaam yow kaay kaay kaay ci alal ji ñu sàcc jox la. bu ko defee nag noonu ñu koy communiquer di ci waxtaan public ci seen débat yooyu bu ko defee yow man nga cee bañ a am ambition de nga naan noo kon gaa yi ñu ngi liggéey nangam sangam transparence fekk ay doomu xaraam lan defalul askan wi dara lu dul sàcc seen alal dara defalul leen ko askan wi lu dul sàcc seen alal may wax sénégalais yi la ma waxoon ci laay bi passé da ngeen a tëb dugg ci ay xal te dese ngeen beneen tëbin des na beneen tëbin laa la wax des na beneen tëbin ñam bi ne ñamet des na beneen ñamet <coughs> des na beneen tëbin buñ war a tëbaat gis ngeen législatif yi buñ ci nelaw pourtant Sonko bi mu fi taxawee ak Macky Sall ni doon dunde maa ngi gis ñu jël vidéo boobu di ko tourné naan waaw Bougane sax mu ngi koy wax de naan ñun bu ñuy campagne ay baaful la ñuy ut def ab euh, euh, jël waxi Sonko di ko teg parce que pom moom moo ne woon ah nguur kenn du ko jox majorité à la sambale nationale mooy nguur gu buggul askanam nguur gu buggul askanam lañ dul jël majorité teg ko ci loxoom nguur guy doxe dik